ni discours pour que xam ni ñuy doxalee. merci Ajara Ajara euh, Mané Mané dafa mel ni ku dëkkul Dakar quand Mané dit que ne Dakar c'est déjà acquis Mané dinañ xam ba xam Dakar. moo ko daan jaraaf ndaw. ok ndaw. waaw nest pas. mu ne ñoo doon gagné il faut que ñu xam ne élection yi. bokkut ak benn élection boo xamante ni jàll nañ fi Pastef même bu gañee Dakar présidentiel leer na leen ne législative bii ñu jëm nii mais contexte bi changé na bu bu baax a baax et que du même du même élection type de d'élection yi n'est-ce pas du même non du parce que kii élection euh, législative la n'est-ce pas euh, affaire u affaire u euh, nit ak gox bi mu dëkk la c'est là où c'est intéressant mm. affaire nit la ak gox bi mu dëkk ñan ñoo fa nekk est-ce que wóolu nañ ko pour mu teewal leen bokkut ak élection présidentielle bon Abbas nag ñu ne bon moo leen représenté ñoom ndakaar xaw ma naka la Abbas moom di mënee wax dëgg fa yàlla mais doon borom Ndakaaru Abbas kuy Abbas ak fan la dëkk ci Ndakaaru na ngeen arrêté seen yi ngeen def leer na leen ne Abbas du borom Ndakaaru parce que dëkkul sax Ndakaaru maintenant euh, dafa am lu ma bëggoon leeral tête de liste bu jàmm ak njëriñ ñun suñ ouverture ñu ngi ko defee géejowaay n'est-ce pas jàmm ak njëriñ le président Amadou Ba géejowaay la démarré n'est-ce euh, fii nii département bi tête de bi moo nekkoon biscuiterie yi d'accord euh, maintenant ce qui s'est passé c'est regrettable Adja c'est c'est vraiment regrettable euh, façon euh, violence boobu noonu warul am warul am warul am ci ay sénégalais parce que gis nga képp ku fi gaañu parmi ñi lay seeti hôpital wala kuñ fi rey ñiy dem cimetière dina am ñoo xam ne ci beneen camp ba la ñu bokk. exactement moo tax il faut que gars yi dalal seen xel te violence bi comme ñoom dem nañ ci violence dem ci violence dem ci violence ba jël réew mi nañ teg violence bi ñi xam nañ ne wax dëgg fa yàlla le parti le plus violent aujourd'hui dans l'arène politique sénégalaise mais ñoom la Pastef ñoo fi indi violence nañ ko xam te dëgg. na ngeen arrêté loolu ñu dem vers des élections apaisées comme ni ko président bi mais c'est-à-dire l'appel bi nga xam ne moom le président république mm-hmm. la république mais est-ce que ñoom bàyyi ci xel sax que bàyyi ci xel bu baax ah baax ñi nga xamante ne ñoo di tête de liste bi appel bi mu def malheureusement président de la république moo waroon être plus clair bi muy lancer son appel mu wax avec son parti parce que ñoom ñoo mais c'est pas son parce que n'est plus là-bas toujours membre de PASTEF nekkatul secrétaire général bu PASTEF il est toujours membre de PASTEF dañ bàyyi sénégalais yi ñuy nax le président Bassirou Diomaye Faye ba léegi PASTEF la bokk voilà c'est ça la vérité donc waroon na wax ak partem mu waxtaan ak ñoom mooy leen léegi ñun ñoo takk caq bi violence bi nañ ko teg fële ci suuf dafa ñaaw yi ñu gis ci télévision bi sax du ma ci bëgg commenter man bëgguma commenter yii même le discours de de Abbas ci un Sénégalais bu yëkkati yenn kàddu yi duma ci delsi dafa am yoo xamante nii mais waruñ ko yëkkati ci suñ Sénégal gii nii aujourd'hui gars yi nañ comprendre que ne malheureusement li war a am te le président de la république juum ci digoon ñu ko ba pare te matérialiser wu ko mooy la réconciliation nationale dans son premier discours loolu la njëkk a yëkkati comme kàddu malheureusement defu ko donc ñu ngi ci lancé boobu toujours ci dynamique boobu toujours ci di di wax sénégalais yi loo xam ne vraiment mais gëmuñ ko di nax sénégalais yi na ñëw maintenant dans l'essentiel ñu fexe dem vers la réconciliation nationale askan bi ñëpp ànd doon benn ñu liggéey réew mi politique ñu def ko mais ak ak ak c'est-à-dire ku nekk doon doon républicain voilà ce qu'on demande aujourd'hui violence bi jaratul yëkkati mais nag ajaratu mm-hmm. sénégalais yëpp xam nañ ne très sincèrement la violence ci Pastef la jógee ñoo ko fi teg. ñoo ko instauré ci Sénégal non ñoo ko fi instauré d'ailleurs am na kenn ci ñoom koo xam ne ñoo ko jël mu nekk ci ñoom ànd ak ñoom. 2022 bi muy dem élection législative comme bii nii jàmmaarloo ak Ousmane Sonko bi nga xam ne mooy seen tête de liste aujourd'hui mm. moom Mimi Touré à l'époque mu ngi woon Benno Bokk Yaakaar bi ko. la tête de liste bu Pastef bi Ousmane Sonko waxee ne ko dama bëgg ñu def débat euh, public parce que moom yooyu toujours ay contre rek la c'est-à-dire euh, saupoudrage rek ci lay nekk musul musul invité kenn débat ba pare gëm ko buggul dem débat day wax nii rek quoi donc bi mu ko fi invité pour ñu dem débat Mimi def ko tegal ay conditions quatre conditions la ko tegaloon benn bi moom ci intéressé parce que mooy dugg ci cadre bi ñuy wax nii def ne ko il faut que yow Ousmane Sonko. pour man Mimi Touré ma d'accord def ak yow débat public il faut que nga déclarer publiquement que tu renonces à toute forme de violence pour dire quoi Mimi ba nekk ak moom dend ak moom xam ne ni mais c'est l'homme politique le plus violent aujourd'hui dans l'arène politique d'accord euh, mu am ay mbir yoo xamante ni jur na muy euh, li nga xamante ni moom moo xew euh, ca taxaw incendie bi fa am ak gis nañ ay ndaw ñëw fa daal di def euh, lu nu mel ñu koy ñaawlu yi tamit mi nga yaakaar ni kàddu yooyu noonu taxul lu nu mel am ba ñu bari di ko jiiñ naan waa Pastef la ñuy na noonoo du waa Pastef ndax politique euh, dafa doy waar mën na nekk sax ci yeneen camp. d'accord euh, balaa may dellu si balaa may répondre ci sa question bii nii ci attaque siège taxawu bi. Mhm. ça mais moom li mu wax man ci loolu laay dellu si. grand jaraaf. Mhm. ndaw ndaw bëlëb. bëlëb dugg yow yaa dëkkul ndakaaru sosoo woo fi yow yaa dëkkul ndakaaru yaa réere mbir parce que wala boog da nga am musique ci diggante bi. <laughs> déet yow kay waxal rek. wala da nga am musique ci maa ngi ñëw maa ngi ñëw. <laughs> xëy na yaa ngi def yëpp nitu Pastef yaa ngi wax lu la wóorul. xëy na at yi néew na <laughs> xëy na at yi néew na de. Hmm. mais suñ borom dimbali nañu ba ñu teel a bëgg suñu réew. ba teel a intéressé wu ci suñu histoire politique réew. boo ma taxawee bëgg ma gëmloo ne violence politique ci Pastef la tàmbalee su suis désolé dama la naan da ngay tuur lëndëm ñi ñuy déglu. 62 fii fii Sénégal fii la xewe ah woon. bul convoquer l'histoire est-ce que da may bàyyi ma wax wala doo ma bàyyi ma wax. merci beaucoup Sénégal la xewee 68 Sénégal la xewee 88 Sénégal la xewee 93 Sénégal la naa mën naa ci yokk 94 boulevard centenaire 6 policiers tués au sabre. lors d'une manifestation Sénégal la xewee on n'est pas amnésique est-ce que Pastef a fait ça est-ce que Pastef s'est attaqué à un juge pour le tuer Pastef n'a jamais fait ñi ngeen bokkal tey coalition ñi ngeen bokkal coalition ñi ngeen àndal ci seen grande famille libérale bi ñoo fi nekkoon ca jamono yooyu yéen a dem ba obligé indi fi loi Ezzan pour pour ne kenn dootul waxati ci li xewoon ci maître sëy ça c'est juste pour enlever Mm-hmm. le doute laa la mun a wax ci propos yi ngay tenir ci violence ma dellu si ci violence su Pastef bi ngay wax effectivement Pastef effectivement Pastef a vécu la violence yàlla àtte na tey soriwuñ ko on est ici à Yoff premier siège Pastef bi ma xam man fi may commencé militer à Pastef en 2017 c'était ici juste en face siège yu Yoff bi fii la woon siège bi ñan ñoo ko attaqué woon waa Pastef ñoo ñoo attaqué seen siège ce siège a été attaqué ici saccagé n'a jamais connu les résultats de l'histoire de de l'enquête te yéen a newoon ci nguur gi fii lañ ko attaqué woon ñun xamoon nañ ñan la mais gannaaw ñun. man a gannaaw ñun kenn assermenté wuñu ba ñu mën a jàpp nit jàpp jàpp nit ne diw yow yaa def lii dañ lay yóbbu police toog nañ seetaan pourtant on a eu assez de grandeur demuñu fayu ji te xam nañ ñan la soriwuñu fii on sait pertinemment qui a fait ça attaqué suñu siège saccagé suñuy document fii Yoff ñu bàyyi mu sedd ñu jóge ci ñuy organiser meeting fële Kër Massar ñu rey suñu militante boo xam ne c'est elle qui organisait Mariama Sagna jusqu'à présent ba fi may waxee ak yow on ne sait pas quels sont les résultats de cette enquête. Ah, je suis désolé et c'était crapuleux. wax. <laughs> vas-y vas-y c'était crapuleux c'était un crime crapuleux tey par par respect pour ces enfants qui sont vivants je ne vais pas revenir sur les circonstances de ce crime-là on ne parle même plus de politique ñu jóge ci. dem ci attaques yi nga xam ne moom lañ def Ousmane Sonko toutes ces attaques perpétrées contre Ousmane Sonko on s'est attaqué physiquement à son intégrité physiquement simplement ci affaire politique dóor nañ ko fi toj nañ fi otoom gazé nañ ko fi lu nekk def nañ ko ko fi tout ça ngeen ne Pastef mooy parti parti violence xam nga lu tax ngeen di gis loolu euh, yàlla dafa atte ci Pastef la ñu amee le plus jeune président de l'histoire du Sénégal Bassirou Diomaye Faye Pastef ñi ko topp ay ndaw lañ te Pastef a résisté quand on résiste quand on résiste on ne se laisse pas faire. da ngeen a résister wala da a fay. dañu résister y a fayu c'est se venger ñun dañu résister dañu taxaw lank ne du ci dal et si c'était à refaire on résisterait parce que ku résister wul complice nga yéen nag yéen tey yi ngeen commencé am politique ku affirmé wu effectivement yéen seen politique ça toujours été. feutré nii oui nii non du wax li ma bëgg waaye damay manœuvrer ci suuf seen leader loolu lañ ko xamee manœuvre lañ ko xamee seen leader gulet mu tàmbalee jël ay position tranchée gulet et c'est parce qu'il est acculé amatul choix parce que xam na ne fu mu toll nii bu jëlulee position tranchée le train de l'histoire da ko fii bàyyi même pour être candidat il a manœuvré pour être imposé à son feu à son ancien mentor il a manœuvré pour être imposé à son ancien mentor musul affirmé wu ne man lii laay def un politicien qui ne s'est jamais affirmé et c'est aujourd'hui un gars qui est un politicien là mooy ñëw fii duñ jox ay leçons naan ñu violence. affirmé wul comme nan c'est-à-dire affirmé wul comme nan. affirmé wu wax samp ndëndam ne man je suis candidat faire ça déjà rien pour être président pour être euh, choisi en tant que président il a préféré manœuvrer. manœuvrer comment. dans le dos de ñi xam ne ñoo naroon nekk ñoo bëggoon nekk candidat ci biir il les a tous éliminés sans pour autant dire qu'il veut être candidat. je vais pas entrer dans ces détails c'est leur cuisine interne. non non non comme que ya ngi ci ay c'est-à-dire un débat personnel. sën génn nga déjà yow dafa am mais demal dans les détails pour l'instant c'est mon temps lim la la ko de taxaw euh, dama yeewu tey fajar pour dem liggéeyi comme tout le monde déglu rajo déglu rajo dégg na siège u taxaw dañ ko attaqué. mu dugg ci groupe WhatsApp yi j'ai vu les comme tout le monde. Euh, je déplore cela je déplore cela parce que xam naa ni mu méttee ndax ñun dal nañu Pastef attaqué nañ suñu siège ñëw nañ injustement tas suñu parti ñëw daanaka attaqué encore deux fois suñu siège fii Yoff plus Kër Maodo. donc à deux reprises ñun on a été victime de cela donc ñun xam nañ li ci attaqué siège. d'accord donc je déplore cela comme tout le monde sans commentaire. mais mais est-ce que comme li ma la expliqué li ma la laaj mooy waxu Abbas bi. Mhm. jurul lu ni mel euh, par rapport ak li nga xamante ni moom moo xew taxaw. ça n'a rien à voir ça n'a rien à waxu Abbas bi. Mm. biig la ko wax ci suba mu yeewu dellu ci. def beneen discours apaisement. Mm. ça rien à fu mu toll nii. le fait que ñu koy jiiñ waa Pastef ñoom la du ñoom calcul politique la. waa Pastef ñu ngi koy jiiñ waa taxawu ñu ngi koy jiiñ waa mouvement Barthélemy Diaz waxuma taxawu de. Mhm. waa Pastef ñu ngi koy jiiñ waa mouvement Barthélemy Diaz léegi nu ñu def. d'accord waa Pastef ñu ne waa mouvement Barthélemy Diaz ñoo def loolu nañ bàyyi police def liggéey après on verra. d'accord d'accord euh, euh, jaraaf dama lay.